seyxina ahmadul qadim wa ala xulwatina al azim maam cheikh ibrahima fall babul muridin barkab cheikh abdul karim mbakke faddilu noo ngi sant yàlla di julli ci njool màkk di sunu suñu kóoluteef ci seexul xaddim waaw yàlla fi yàgg waaw maam maa yanfau naasa fa yamkusu fil ardi dundam daa am ko yàlla ñoo ngi ñaanal Cheikh Mouhamadul Mountakha mu yàgg fi lool te ànd ak yàlla na fi yàgg te ay faral di wax gars yi lu bari ni leen sëñ Abdou Lahad Mbacké mu baax ma moo waxoon ni sa kilifa loo ci fekk mooy sa sens waaye ñun leen fekk ci suñu kilifa sagu nañu ci ñun ñëpp sëñ Mountakha mii ku sukk jébbalu sagu nga ci moom moo tax sunu wir yi war na cee bokk di ñaan mu yàgg fi te barke Xaadimu Rasuul comme lu ñu fekkoon ci moom mooy sunu sens kay biñ ci fekkee li ñuy sagoo war na sant yàlla te koy ñaanal mu yàgg fi te wér sa kilifa loo ca mooy sa sens Cheikh Abdou Lahad Marema Jaxate ko sa kilifa te lu mën a xew mooy sa kilifa loo ca fekk mooy sa sens a doon ci àdduna bi nii nii suñ muntaxaa waxam njéeg jëfam jéey ànd ak lu mën a xew parce que xaadimu rasul kenn du moom waaye nag noonu lay demee de ba àddunay tukki ku fi toogal borom Touba yaa yilif ñëpp parce que moo ne woon zimaamu wara asri la dallahi fi yaddi wa ma rumtuhu min malikin qaada bi la nii waaw moo waxoon wa jaadali bil jayidi min gayri xeetin wakkami loolu màkk may dama gu bees tàq ñu ne ko lu mu la may mu ne min gayri xeetin wakkami du ma ñaata du ma ni indi waaye lu waay baax la yót ma waaw 18 heures la Sëñ Muntaxaay ubbi fi mu toll yoonu poroxaan mooy jooxe Kaolack mooy croisement wu Sénégal fi mu toll nii ñëpp fële nga koy jëm fu mu fanaan rek fële nit ñi daw jëm. wa jaadali bil jayidi min xayri xeetin wa kami ku toog ci daru borom tubaab ba addunay tukki wa jaadali bil jayidi min xayri xeetin wa kami dooni ñaata dooni indi waaye lu gaa yi baax la yóbbu la de. yàlla fi yàgg. maa ngi nuyu mbooloo mi bu baax. bu fi ne ku mu mën a doon maa ngi lay nuyu. waaye maa ngi jiital sëñ Mouhamadou Aïssa Mbacké ah. dugg ci suñu biir waaye sagal nu nag kuróoral mu suñu jotaay bii damaa wax sànq ni bu fekkoon dañuy ñaw yërey góor yëpp yërey góor samaam lañ koy jox moo koy sol ñépp sol lu mel ni lii bàjjen boo si sol ndax moom rekk ay góor ci yàlla man nag lu ma la wax wala bu la neexee ma justifié bu la neexee ma bàyyi waaye bu ma justifié mën na laa bañ a neex waaye dinga xam ni Saliou li mu wax dëgg la borom Touba bi yàlla la lay dénd bi ba fii nu toog ku fi dul njool màkk fii nga koy jàll moo ko wax nag aw ma ci benn responsabilité moo ko wax moo wax ni sahida lii laahu bi annahu ahab li min siwaahu wa nabi baadallah saaw yoon niw sax far suñ mag bi kenn du moom moo tax sa jotaay bii Mbàkke donc ciy sabu bu wér a wér a sax ñoo ngi ñaan yàlla mu guddal sa fante wér la fu seex Mouhamadul Amin yeggoon sëñ Abdul Xadim yegg fa sëñ Mouhamadou Aïssa min la tudde yegg fa yàlla na nga fa yegg tur wi rek dañoo doy sëñ Mouhamadou Aïssa Baara rek doy na waxuma sëñ Abdul Xadim sa waajur waaw doy na ndax tur sëñ Tuubaa moo wax ni abu jëxlin genn wàll tur waa ko alal lakinnahu jarrahu nisfu ismihi xaaju tur wi bi dugg ci tur borom tubaa na ca miimi yàmba lakinnahu jarrahu nisfu ismihi xaaju turu abu jaxlin moo alak abu jaxlin kon yow su turandoo rek doy na suñ mu doy sa baara doy na sëkk waaw daa am daa yéefar bu bu tudde woon am mbaam maa ngi tudd ci waxin bi Seydina boobu dugg nañ a biir tudde meneen mbaam mi Seydina Omar ko yonent bi bu rombee fi yonent bi toog rek di wax Babacar nangam jaaral nangam nangamal Omar nangamal xam nga rek waa di ko def di ko def waaw di ko wax di ko wax mbaam yi mosuma am lu tuddee te doon na xarale yonent bi luy ji waaw pour pour nga xam tur rek wax nañ ni ndeysaan ñu nettali ni li nga xamante ni yonent bi toog na lu yàgg gisatul yëfër boobu ak jëfinam yooyu mu ne nañ ko laaj nañ ko seet nañ ko ko seetal da koo gëj a gis xam nga yonent bi mooy borom bakkaar yi mu la ñu seet yi yéefar ba fekk dafa dee ñu ne ko kooku de mu dem ñu ni leen kooku dee na ci fan yële ci ginnaaw ñu laaj ñu laaj ñu laaj ñu laaj yonent bi bi ñu ñëwee ci moom mu ne ana lu ko rey ñu dem laaj ñu ni dafa am mbaam mbaamam moom doon yeew mu wéex daa am mbaam moom doon yeew mu wéex waaw yonent bi wax ni maa ngi waat ni ma tudd Omar la ñu dem laaj ndekete mbaam am mbaam am doon woowee Omar moo wéq ndax Aboubacar daal lewet du defee dara nga tudd Omar nga xam ni maanaam ci tur laa lay wax ci turandoo ci turandoo dama bëgg ñu comprendre li may wax waaw yonent bi si boppam moo bu ngeen demee seet ko kitaabu naa ni ma tudd Omar Omar ko laal laal dégg nga ah waaw bihi taazzaza dinullahi murtafian lahu fadaayu haka la tafkaaru xat adaban naasi turan daf leen a yar par force ñu Cheikh Abdoulaye def bi mu ñëwee la Omar def bi mu ñëwee xat adaban naasi turan bi hudaa wa hadaw jub rek wa hadaw jub nanu bi hët yi nii ci njubam yi Seydina Omar ko yow ma aslama bis bi mu jébbaloo ci rasulullah jibrilu aminu ata jibril ñëw na yàlla wóolu jibril amin ataan bi isni man huwa fawxal kulli qahaaru ñëw na ci ndigalu yàlla lu mu andi sëñ tubaa mu ni mu alliman muy xamle si moom jibril an na islam al fata naka njëbbalu cam si omar li omar busra li ahli sama waa asamaan nit njëkk a kontaan waasu loolu kullu yaxtaaru moom la ñu tànn noonu waaw waaw bi tës sa diin Moustapha Izi Yuza noonu la rek moo tax Mbàkke ñoo ngi santaat bu baax ñoo ngi lay bëgg bu baax Cheikh moom sama am rek doy na ne sëñ Baara Mbàkke fi mu toll nii bu ko juróon ku dul sëñ Tuubaa yaay xam ne sama doom bi sama morom waaw borom bu yàlla ku ko juróon ku dul sëñ Tuubaa yaay wéet xam ne sama doom bi sama morom Mbàkke Xaadimu Rasuul sëñ Baara dafa am lu mu complété aada dafa am lu mu boole lu jafe sëñ Lat Mbàkke ba ñuy wax ba tudd soxna ma Jaxate dañ ko ni Mbàkke xanaa nday kii yëf yi la mu ne tuub leen ko ndayee lépp sëñ Baara ñaari jigéen ñi gën ci jigéen ñi kii ko jur kii nàmpal ko moo tax mu mën gaa yi soxna amintaloo ko jur soxna soxna aw ko ko nàmpal jeex na mënta doon morom gaa yi sama <laughs> sëñ morom de waaw bara leneen la maa ngi nuyu sëñ Cheikh Diop mi nga dendal waaw yàlla na moom mu fekk ko ci bisu sëñ Mbaye Diop nii mën nañ koo fekk fu nekk parce nit ku baax la waaye dafa yàgg ak sëñ Mbaye yàgg lool mu jàpp ko ni rakkam mu bokkal ndey ak bàyyi te li may wax xam naa ci dara parce que dama ko fekkee fekkee ndax mbay nii grand mbay waaw grand mbay la tudd loolu lay wax de grand mbay lay wax sëñ Cheikh bu moom dafa yàgg ak nun ci bàmba ji xaftaani pili roof yi ma daa njëkk sol te nuy daawi na kaw gi muy tëdd moom mii ko daa ñëw ca booba nag xam ni bu ma ñawloo damay toog weer door a ñawluwaat ndeysaan waaw demeegul woon nii affaire bi xëyul rek deme nii di bërki dem rek maa koy nettali sama buntu kër ma ne eh, fekk ay kilifa sa yow sax a naa fekkee nga ko sax bàyyi bàyyi waaw bàyyi Aliou si jàng ñoom nangam nangam ñuy ñuy mu ñooy am ñu fay tàng ci waxtaan beeg yooyu man leen lu ngeen fi gis rek war naa mën a ne bàyyi Aliou si jàng mii mas naa leen a waxtaanal congo jóg ñoom bi ma waxtaanee màggalu ba noppi awma lu ma génnee may dox ñëwoon ndula li jëm si ndula bi ma ñëw ba ci ginnaaw gendarmerie bi lu ma téeméeri xaj wër ma waaw am naa ñëpp ñu ko xool tuuti maanaam tiituma mais am naa lu ma mel lu mel ni mel naa ne ku am lu ko naqari tuuti ba ma ba ma ba ma ñëwee sëriñ bi taxaw tuuti orel ñëw ma jaar ma yéeg man leen man bu ma gaaree oto huit cent million war naa mën a ne ci bàmba ji waaw dama ko fee daj daal dama ko fee daj. affaire bi xëyul rek mel nii xam nga li métti mooy da ngay jékki-jékki rek ñu koy gis benn affaire ñu yaakaar ni dafa xëy rek mel nii non non non dañ ko tarbiyu te suñ mag bi ku ko xëyal gontal ko mu wuyu la bu fekkee dëgg la ci yow bu fekkee nag da nga koo booleeg leneen mu génn bàyyi la ak sa bopp waaw moom mii bi mu nuy fréquenté ci ñaw yooyu da ci daan jàpp ah parce que ku mel ni Saliou Samb nga ñawal ko 217 ko mu jox la junni wala ñaari junni nga loolu baaxul. fay naa la ko nag léegi ay yeewi naa la ko ci ay yeewi ba jeex na bu mu doolu yaa ma ameel de sama bëcc sama ngontum tay mi rek du xam dañaata laay jóge fay na bari ñëw yëpp waxuma yeewi nag avant tay laajal Ibra Fall ñun ñii la woon moom man mi kii góoru bi mu seex sekk ah léeg ñu waaxu ba mu sol ba ba sori a waaw waaxu ba am fu ñu jege door a jël oto waaw koo fi gis mu tegle dépasse yi daana am dépasse benn bis rek bis baa mu génnaat door a am boobu yàlla mooy jaaral nit foofu di lan lañ ciy rëy wax ni da sant yàlla xam ni tey wuute naag démb ñi xëy nag gis affaire bi mu mel nii rek ñoom dañoo yaakaar ne lépp tay la non kii ca ba ñuy rampe la ñu bu fekkoon làmb la bi ñuy mbapat lañ daan ànd dem mbapat maa gën a dëgër bopp ci nit ñi waaye sañu ma woon a bañ a ñëw fii te du dara nag lu dul ko lëri barki sewul xat yi man du ma nelaw bëccëg moo tax bu ma xoolee situation bi mu xaw a kii rek ma xam ni dama fay guddee rek te suba damay waxtaani man damay nelaw parce que li may def xel moo koy def comme xel a koy def nag bu ma nelawul du mën a nekk moo tax bu ko jaree rek damay dem nelaw waaye yow ñu ma tëb sa bis lii lañu ànde te du tey démb la ak bërki ci wax ji ndax da xam ni Saliou dugalu ci benn lépp man duma jéppi sama bopp yàlla mi nu tiim ak tubaab mi nu àndoon di ko liggéeyal tey ay ndaw du ma jéppi ñi fi nekk am nañu ko fekkee xam ci dara ndax kii ci sama ndijoor fekke na ci lu bari bari ca booba léeg sax ma jéem dara jox ko ko mu naan yow sama rakk nga ma ne ko déet may say may du fay war la sunu téyeer la woon xaw nga nag loolu yàgg na noo taxaw nag moom mii El Hadj Sey Diop taxaw na nu ne waaw taxaw nanu fu ne moom mii taxaw nanu fu ne ab tab la waaw yàlla dogal ab tab la moom mi ab tab la daa am jikko joo xam ne ku am ku baax nga ab tab la barki sëñ Tuubaa waaw ab tab la kenn ci ñun waatul xaalis déedéet man gan gan ci ñun waatul sa xaalis déedéet sëñ bi sëñ bi alaaj alaaj léegi léeg-léeg daanaka dinañ toog weer doo gis mbaa du la gis waaw waaye li may wax fii kenn la fi loxo jógul ci moom ñi ñuy jox réew mi sax am na ñu ñu dem ñu leen di jàppale. dégg maa baax <laughs> loolu lu mooy àdduna. suñu seex jërëjëf Diop ñoo ngi kontaan bu baax. naa waxtaan bi fii du fi yomb parce que ñu fi gis ñëpp seen xaalis mbay suma rakk jooju nga dendal. jëng mu yàgg mi nga xam ni dafa yàgg mi waaw di di di jàmbaar yi maam Seera Fall bëgg moom ñu yàgg bokk fu ne muy maam Seera Fall sëñ Góor Jum mi Abdou Mbale sëñ Gañ boobu mii ci wàll sama wet si alaaj saada bii maanaam ñi ma sang bu baax bi sëñ Moor bi Ibra Sam bi xam ni maag moom na man boo mu rek nag may neex waaw ndax man man damaa complexe wu ñi rab neex rab rek ñi mu neex boo leen gisee da xam ni ñi rappeurs yi la ñuy roy ñun borom Tuubaa nu neex danoo war a murite wala de waaw déedéet ñi rab neex ñi nga xam ne ay rappeurs lañu rappeurs yi lañ bëgg boo leen gisee da koy xam ci seenu col ak seen doxin nag lépp ñun borom tubaanu neex danoo war a murite moo tax da nga may neex alaa jir wa waaw ndax moom dama koy càmbar ba xam ne xol bi weex na man man man xam nga man bala ma laa dugal ci biir au fond damay xam nag parce que comme man duma ma ànd ak nit ci demi mesure ku ma àndal yéene naa li ma yéene sama bopp damay xool ba nga yéene ma li nga yéene sa bopp ma door ànd ak yow nag ma door sama xol bi dafa weex Ablaye Loum na ñëpp jàmm maa ngi nuyu maa ngi nuyu gën a baax ngi moom samam gan la loolu sëñ Fallou xam na ci waaw waaw sànq la ma woo ni ma ndax dëgg ñëw kër Gana Mbaye ma ne ko naan damaa yàq nga dem nag maa ngi nii tëdd di nelaw ma yeewoo soxna yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nuyu naa leen parce que waxtu wi bàyyi say nelaw toog ci lu mel ñi ku bëgg lu baax rek koy def su ma xamoon seen dugg yéen ñëpp ma tudd leen yéen ñëpp bëgguma tudd ñi ma xam di bàyyi ñii des comme yéen ñëpp sumay xarit maa ngi leen di man jigéen ñi laa faral benn côté waaw li tax ma faral yéen it mooy yéen cig lewet rek ngeen di dox gasoo leen kenn suuloo leen kenn xaar une minute gars yi une minute. ñun moo teel a waaw. wutil oto Ibra Fall demal wuti oto. ngay jóg jëndal ko perkaat nangam nangam. yéen ñun maa dem ak yéen de. foofu rek ngeen di mujj ak man. parce que suñu mag bi nag léegi tey nag bu leen tey du Saliou Samb mi ñëw ci jàkk di waxtaan ñu naan daa am caractère ah sama kër laa ñëw. moo tax fii may waxtaanee nañu ma ci bàyyi rek ah. waaw waaw fii suñ mag bi fa laa jëm man xam ngeen na benn place laay taxaw am bi nga ma waxee fii léegi addi Sidi Bara Dieng xam naa ne aw tàngoor nga ñëwee waaye Sidi Bara Dieng na ko bàyyam jar na ko doomam jar na waaw ndax dégg ba Sidi Bara Dieng sëñ jar na ko bàyyam jar na ko maamam jar heure bi maa ngi nettali lu neex sëñ Cheikh Gaynde Fatma ko waaj a waxoon ni yow Mbacke loo wax ko mu ni ko loolu ko moom waaye Cheikh lu mu wax nar na ko. lu a woon gars yi mu wax nar na ko ku dul wax déedéet sa du baax nañuy wax déedéet ku mën ko nekk rek ñu wax déedéet sa waaw bu ba nga ko waaw te xam ni li ko wax mën ta nekk bu gis ba jotee rek waxuma la bu fekkee as góor lu metti metti moo baax dëgg lu metti metti baax waaw ku dul wax déet sa waaw du baax sëñ Cheikh nee na Cheikh lu muy wax nar na ko si Mbacke solo loo mu baax ma da doon defar lu otoom bis waaja daanaka lam ca war a def matul juróomi junni mu laaj sëñ Mbacke quatre cent mille sëñ Mbàkke d'accord ni ko demal defar muy defar am taalibeeb sëñ Mbàkke boo xam ne day yëngu ci wàllu oto ñëw xool waaje fa muy defar mu dem sëñ bi ni ko di koy defar oto bi ñu waxtaan ci ba noppi diw noppi yëglu ni noppi na taalibeem boo fa toog foofu te xam dara ci wàllu oto sëñ Mbàkke jox ko quatre cent mille yi ñu ko jox ko ko doon nax rek mu ne ko lan nga ni mu wax ba noppi suñu bàggee ni tekk ba yàgg xool xaalis ni ko waa nu may def ak sama kàddu mais loolu buñ ko yéem ñun nañ ko dund nañ nañ ko roy suñu sëriñ la waaw diw nu may def ak sama kàddu demal jox ko xaalis diw nu may def ak sama kàddu demal jox ko xaalis ay bu doon ñii ma gis jël te teg waaja loo xam ni nag lañ cay dolli ci ay wax ñun ñun ñun xala nekk fi di yëw yi ñuy quatre cent mille te trois cent cinquante mille daa génn ci moom deret dina moom as gor noonu la war waaye nag borom sa baay a mel neneen waaye loolu war na garaaw ci ñu Cheikh Mamadou Moustapha al Karim dara amul dara amul dara dara dara nga garanti dix millions tërër raay te cent kilomètres Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim ba tey jii nga xam ne adduna bi na amagul benn privé bu tëral ab raay un kilomètre amagul ba tey jii du du beneen pays boobu beneen réew moo jëlee raay ba privé ko tëral raay état adduna bi mooy Cheikh Mouhamadou Moustapha Al Karim xanaa xamoo bu raay bi la defar ba noppi dem fondement wul jumaa ji sax moo gañ kenn dootu gis ku def mu def ngeen a am ndam de da ngeen cee bàyyiwul xel rek waaye yéen ak ak yéen yàgg am ndam billaay dëgg la damaa wax sànq wax bu garaaw ci sëñ Mountakha bu fi nekkal borom Touba noonu lay mel sëñ Modou Moustapha bi fi nekkalee borom Touba la yëpp yëpp ñëw na laay cinquante taxaar gi noddu fii garab ma waaw quinze mois indi ko quinze mois Cheikh Moustapha indi raay bi saxaar gi daw ñëw nodd ci gaar bu waaw parce que waru woon mën nekk nag waaw moo tax li ñu ko appaloon ñoom sax gëm nañ ñu waru ci mën a nekk moo tax ñu appal ko ko ndax dañ ko nangul ci kaw bëgg ko bañal ci suuf moo tax ñu appal ko li ñu ko appal teg ko ci sart yi ñu ko ci teg bu ñu la waxee ñu tel Cheikh Moustapha waaye bi ñu ko ko waxee ba mu ñëw ci kër gi ba toog daf ne xanaa xamoo ni bu ñu ma waxoon ma dem solu ji quartier doon soldaar diggante ak sàngam ba sàngam ma nangu ndax li te yëgagul ci solu loo ma quartier moo tax li ma wax ma ne ko waaw te suñ ma sàmm mbàkkeem suñ ma sàmm mbàkkeem jàmbaar te ni na gannaaw neel waaw seen wax ni ko foo sa bët bi romb ma tëral foofu kaay sa bët bi fu mu romb diggante jaay ma waaye naa fa tëral bu rëy Subhanahu sëñ Bassirou Mbacké nga xam ne daa doxee jaaree ba Touba foraay bi toll dañ koy yëkkatil baraak bi avancé sëñ Bassirou way jur sëñ Mountakha foraay bi toll dañ koy yëkkatil baraak bi avancé ko ba foofa ngas mi fu mu mu campé fa ngas mi jàll sëñ Bassirou jàll jaaree ba Touba sëñ Bassirou da koo dox barki Xaadimu Rasuul ay way ñoon wii yàgg a métti nag ndax mosuñoo nekk ci suñu jàmm moom suñu bopp saa su ne ñoom ñuy bëma xëkk këma waaye ci loolu la ñuy demee détermination waaye Cheikh Moustapha war naa mën loolu te ñu ñëwoon du fi amee daal ko yóbbu bu réaliser li mu réaliser juróom-ñaari at 33 ans Sëñ Tuubaa nekk ci loxo di réaliser li muy réaliser am na fii ku tudd njaareem léegi naan Tuubaa ma ni ko la fa borom Tuubaa def def ko fenn 15 ans la fa waaw am na ku tudd njaareem léegi ma ni ko borom Tuubaa ci benn barab la benn baram rek la borom Tuubaa mës a def 15 ans Jurbel yooyu ñaari yoon la ko mës a génn benn bi benn bi Xurmbakke la dem ci sëñ gaawaan a garanti tubaab bi ne ko bu takkusaanee dinaa ko indi sëñ gaawaan moo ko garanti de maam Seex Anta Mbàkke moo ni tubaab bi fu takkusaan jotee ma indi ko dëgg la barke maam Seex Fall sëñ Tuubaa nee na sëñ gaawaan bi sëñ bi sëñ bi sëlmal takkusaan sëñ Tuubaa nee na fu ma tudd Cheikh ak may tudd lu di ma demee tubaab bi ni ko yàqu yàqu yow waaye maa ngi ñëw ñu dem Cheikh. kon sama lépp Daaru Salaam la. ah déet moom moom dara dama ah lii damaa yàgg ah. sama dëkk ndëkk. Sidi njëkk jox addi yi. banaa ñëpp laa bëgg nañ ko neexal ngir jëm bi Sëñ suñ gañ man mën naa wan ne xol bu nga yor li nga def sànq maa ko bëggoon defal si li ma sama sama blañ nga yàq ak suñ tubaab léegi maa ngi koy wax dem ba saw mais laaj Cheikh Diop Baye maa ngi lay siyaar ñëpp neexal ku jàpp ne sëñ Touba la nga yor am na ci wàll nga jóg neexal sëñ Saliou bi ngir sëñ Touba na ko ñëpp neexal ngir sëñ Touba sëñ Touba la dama ko génn dañ ko neexal ngir jëmmi sëñ Touba dama génn sëñ Touba bu ko génnoon naa bëgg mu mat bi def ko màggale ngir sëñ Touba na barta bari bala noo fay ki laaj fay ñu joxe te bañ a